il faut il faut ma wax ci Reug tuuti mais moom mais ma wax ci moom gisee ko. laa laaj bi report bi ku arrangé parce que xam ñëpp xam ne ni report bi Reug Reug lay arrangé nag guy gi doole bu mu yoroon ci doole bi mu yor non guy bu bëri. guy gi moo guy gi moo guy gi moo am wërsëg ami ñaan. billaay guy gi ah non man maa ngi doon xam ñaan quoi. boy li nga lim doon liggéey da ngaa nëbba ñun ñoo nekk xoolal benn vidéo bu ko dugal fii bu dugal dara demal nga liggéey ñëwaat. loolu booy bi loolu mu teg ci ginnaaw di jugee moom guy da ngaa antan guy gi quoi tànkee daa baax ay doom la naan gisoo ni mel. guy gi ngi toll nu ko neex internet bi yëpp ñu ngi coow. yow baa ma nga wala loolu man loolu laa bëgg xoolal guy gi na gën a toll nu ko neex gis nga tuñ suñu mbër boo gën a rëy gën a nganda fi ci ci giri gën a diis ñaari yoon ëpp ko doole gën kaa xale. guy gi ngay wax de guy gi mbër kaamil la de gaynde. xoolal uyu am mbër dama lay wax benn affaire ne la mbër boo entraîné gën a ñuul mais doo xees ma ne bër boo entraîné dëgg dëgg dëgg da ngay da ngay loolu yaa ngi dégg guy gi boo entraîné dëgg dëgg dëgg da ngay da ngay da loolu yow guy gi fii nga me teg micro mi mi apat eh. xam nga laa nga boole maa ngi moom plateau ah Zarko. Zarko. moom nga bëgg a Zarko da nga ma nga boole ñu plateau man ak moom. mais dimbali mooy ngir yàlla. plateau non Zarko daa bëri wax. te defu fi dara ñëpp a ka daan kan la fi Mata Sita. non. lay wax nii. non non Zarko boole ak man ab lii quoi boole boole ñu boole ñu ab direct man ak moom mii nii. nii sa oh, man Murcia la nekk fekk ma fekk fekk ma Murcia yow nga ñëw ñu bëri man a jaw. <laughs> Zarko maa ngi lay nuyu. dama amoon appel quoi. Zarko mais amala mooy problème amala man amala ma na xari. dafa ñëw dafa ñëw caare fekk koo xamante ni gaynde gaynde la yaa ngi dégg Zarko di bëgg kaa yee quoi pourquoi dafa ne maa ngi moom mii mais xam nga xam nga Barcelona nekkoon Barcelona daw yaa ngi dégg kan Zarko ngi Dakar Zarko waaye maa waaye lu tax may nekk lu tax lu tax lu Dakar oh ma ma ñëw daan ka lu mat fois bàyyi kam ñibbi waaw déglu rek dallu déglu dallu <laughs> yow ak du làmb parce que man gis naa la ni ma la gisee xam naa ni mbër bu amoon taxawaay nga mais màgget nga léegi ni ma gisee jeexal nga Zarko bu ma ko gisee itam yàggul Zarko mu ngi ci. moo moo yow moo moo moo moo moo moo moo xamoo uy ma uy ah, moo tax non non bàyyi ma xam pare. waaw la. bëri kee def ci yaa may dégg. waaw fii ma xel a def du doole du dara. waaw barki rasulillah kii boo ñu booloo man ak moom di bàyyi kii. waa dëgg naa la léegi léegi léegi daal léegi ñun yokkuñu sa combat ak Zarko Zarko dafa nekk activité nekk mbër ba léegi. yow bàyyi Zarko laa bëgg quoi bu ma fay quoi nan ma waleeg moom bu ma fay. waa léegi baax na léegi bàyyi mu ñëw rek daal léegi yow bàyyi ko bëri. mais problème bi xam nga lan la. Dallu. Zarko lu ko neex leer kenn mënu si dara. ah lu la wax. waaw ma ne Dallu. Dallu ma ne Zarko ah lu muy leer lu neex ngay wax. waaw léegi léegi Sénégal lébu yee sëpp fit te yow doo lébu man ab lébu la ma yaa man ab lébu la ma non non doo lébu de nakam boo oh, noonu ba noonu nekk lébu boo pare bëgg bëri joon loolu xam man ab lébu la man ama neex ma nijaaya <laughs> ama neex sama rakk la neex sàmm ma nijaaya ama neex ma nijaaya non <laughs> damaa bëgg xam mais am nga combat de. waaw yow dimbale ma nga noo am naa combat yow yaa war a ñëw fii rasulilah billahi loxo bàyyi ma jox ma bu la dalee. yéen boole noq si benn takkusaan kon nga fi ñëw yow bëri wax. hey boss gi dañ koy liggéey gi dañ koy liggéey man mënoo liggéey. tey tey yaa may dégg. waaw Dallou. tey man ak Zarko man la seet Zarko du mat du mat quatre mois yi xam nga cinq mois ma koy wër ci ligne. no mais mais mun na bañ a sedd mun na tàng mun na tàng jër mais da ngeen ci jàll ñu waxtaan ñu waxtaan parce que bu mag la def nga lu ne ci làmb macha allah. non non kan moo kan moo def si la dara si kan la kan. ah. kan nga ne daa def dara ci làmb a la. Sonko def na dara làmb moo tax nit ñi xam deful woon dara ci làmb nit ñi duñ. waaw non non man man mais non mais defal attends defal ndànk mais victoire ba Zargo moom damay laaj. Zargo mu rànd da kaa daan ah. ah. Siteu Siteu daan ka. waaw ah Sa daan ka. waaw yaa ngi dégg. ah wàll mais moom nag kan la diyo te ablan. kajaate diyo ay mbën. Zarko daan na ay mbër. mais eh wax wax Zarko wax ma kan la daan. Zarko daan na caat bu Boy Bambara. waaw ban ban caat. daan na Mansour Diop numéro na bàyyi na ba kooku bàyyi na làmbar kenn ki mi ngi nii day yéeg day yéeg wàcc rek nee ma wax ma champion bu mu daan. daan na Mame Balla. ah non non waaye man man ñun daan ñun bu mu daan boo am qualité. lance mbër yi mu daan mbër yu am qualité la Zarko daan te ay mbër yu am qualité ne làmb mais yow lan la euh, li ma bëgg a comprendre daal moom. waaw li ma bëgg a comprendre lan la Zarko wax te te mu naqari la. yaa du non Zarko li mu wax li mu wax mu na de. la wax mu naqari la. non non non dama kaa dama kaa yàgg Zarko day wax lu ko neex. lu ko neex lay wax te lool du yoon quoi di attaqué ay promoteur di attaqué ay nit yoo xamante ni xam nga làmb rek ci làmb rek la nekk pour mu avancer quoi xam nga. zéro ko di leen attaqué ba nga déglu ma seetaan naa ko mu yegg Gris lu ne. di nga nit ni ah? nit da wax loo xamante ni xoolal bu la nit ñi déggee da lay naw quoi si ay dégg mais Gris Bordeaux ku ne xam na ne li mu am ci àddina daf kaa liggéey ay président ak ay affaires yi mayu ko dara si ami comprendre Gris lu mu am lu ne da kaa waaw mais xam nga tamit on est en démocratie. waaw ah, mais mais tamit mu ñëwaat ne Gaston moo yàq lamba ji bu yàqoon lamba ji tey jii la Gaston bu gënoon si lamba ji lamba moom dootul bëri. waaw mais xam nga xam nga non xam nga tey one est en démocratie xam nga tey démocratie bu ñu ne moo tax nit am sañ-sañu Gris Bordeaux def dara mu ñëw ne Gris Bordeaux def nii d'accord ma ci. on est en démocratie démocratie monsieur Zarko bës siyaar naa la mais bës la moo tax nga coupé ko sànq yow. non yéen ñaar ñëpp laa coupé parce que seen yaram dafa tàngoon te yéen a ngi làkk espagnol te ma ni mais mais mais waxuñu mais waxuñu lenn loo xamante ne lu manque de respect la de dañ doon wax tooñante rek ci non ah wóorul woon quoi. ma teel dafa ma dafa ni ma naa ñëw mu jàngal ma espagnol ma ne ko yow gënoo ma dégg espagnol maa la gën a muus loolu lañ doon wax quoi mais yow tamit du ñu wax ay waxu dégénéré non xalaat loolu. tàng dama leen xam ni ngeen di café noonu ngeen di jàddee koñ dama leen xam quoi. non mais munu si ñàkk nag des fois foog nga jàdd koñ yooyu noonu munu si ñàkk. waaw moom moom moom moom eh, eh, eh, moom noonu la mel te liñ koy gis am sañ wax la maa moom yam rek. léegi mi ngi noonu nag gis nga gis nga gis nga àddina bu yow boo ragalee boo raga boo ragalee li ngay wax rek jarul ngay wax quoi noppi toog ko ca laam mais li nga mais li nga li nga sax am na dëgg yoo xamante day day day loolu quoi yaa ngi dégg. waaw olof Ndiaye fen wu yàq moo gën fen fen wi defar moo gën dëgg gu yàq. loolu ci xëy la ko wax. mais mais mais mais yow yow man Gaston defaruma dara mosuma tëgg ci làmba xoolal soxlaawuma ñaar dërëmam. man tamit mais waroo ko attaqué. Gaston defaluma dara mosuma tëgg la làmba. non mais non. non déglu ma. dalu dalu loolu yàgg na tamit nag bul ci ñëwaat. non non damaa métti boobu ba léegi maa ngi doon dugg ci ligne bi damaa métti. waaw ba léegi nga boobu ba léegi nga nekk Espagne di wutum xaalis rek mu lay yaa ngi ciy soog a wax. non man am man am naa xaalis naka moom xaalis mais yow man man est ce que xam nga ni yow kon da nga maa dégluwul man musuma wax Gaston lu ñaaw rek. non non da nga ne da wax nga ne Gaston moo yàq làmb ji. moo moo yàq làmb ci kaw mu ne mu toog ne moom bàyyi na làmb Gaston warul toog di wax bàyyi na làmb man loolu moo. wala même wala uyuma bu waxee loolu sax même même bu waxee loolu laa wax. Ah. même boo waxee loolu ñëw na andi ay millions yu bari invertir ko ci làmba ji ñëpp di si jariñu. Balla Gaye yow déglu ma ah, yow tu rien compris non déglu ma eh. dama bëgg nga déglu ma yow tu n'as rien compris Gaston làmb moo ko may li mu am làmb moo ko investir. non non non non non déglu ma rek indiwul làmb indiwul ay millions ci làmb ji. moom li mu am làmb moo yàlla ak làmb la kon warul toog di naan bàyyi naa làmb yow li ngay wax xamuloo ci dara. da ngay dem nga informé bu pare. maa la ji maa ji si la eh Zarko la ji si làmb fuuf. maa ma ji si làmb mais maa la ëpp information ci làmb téeméer junni yoon. ban information nga bopp ci bos ah? eh, waxal non waa xaamu noppi xaaral xaaral demal ba bos waxal waaw. foo ngeen nangu benn affaire. il faut mu am kuy. yaa ngi boori ñaari dof de. il faut mu am kuy contrôler débat il faut ngeen kenn koo xam waxtaan bi léegi Zarko dafa am question boo xam dama la ko bëgg a laaj. guy gi ak rëg-rëg dañu jàppoon bés. te yow nga xam guy gi bu baax ndax da nga koo daan ba pat mu daan la arène. bëri ngeen ñaari mhm. combat yow xam nga mhm. guy gi guy gi état de forme bu mu am. dàllu mi mhm. jàpp nañu combat bi ñu ko reporté. guy gi la arrangé ndax rëg-rëg dafa nëbboon boppam. rëg-rëg dafa làqatu woon nekk ci doole mais man ma gis guy gi guy gi am doole bu exceptionnel ci forme yi. yow pour yow combat bi dàq bu ñu ko dàq naka ji la arrangé Reug wax dëgg bi moom dàq ko dàq nii moom Reug Reug la parce que Reug mi ngi woon ci benn benn benn benn benn bees. ma jubboog moom mënumaa jub mënumaa jubboog moom bës kii. bi baaxul ba pare. dal après nga tontu ko rek. lu tax lu tax mu arrangé dëgg la daal man connexion internet laa yore direct xam ne pour man kese la yaa ngi loolu dañ koy dañ koy wax ñuy jënd connexion internet bi nga wéy ko moom laa yore kon doo ko màgg yow dafa am problème alors amul amul amul connexion amul amul crédit quoi billahi et eh, Mame Liba yónneel yónneel Zarko vingt vingt euros connexion dàll man de man li ma jënd crédit de wifi laa yore wifi mais da am ay appel xanaa mooy bloqué mais Zarko ñëwal ma ci lu tax ne rëg la arrangé affaire bi parce que boo xoolee chemin bu mu def ak guy gi chemin bu mu def du benn guy gi dafa jóg dem préparé ji combat rëg ci comprendre rëg ci kaw combat boobu noonu amul benn boo xamante ni dañ ko ci laaj poids boo xamante ne moom la war a compétir comprendre force dafa doon wàññi poids dafa doon wàññi poids pour am compétition bu mu waroon def te guy gi daf ko sàcc doole daf ko sàcc poids parce que guy moom amul dara lu ko empêché pour mu jël poids mais Reug Reug dafa amoon empêchement pour jël poids. comba euh, MMA guy gi moom mi ngi toog di di di préparer mbaam moom ak Reug Reug parce que dafa amoon loo xamante ni. dafa quoi sinon day li nga wax noonu xel xel yanu na yanu na maanaa ah. dafa nekkoon di préparer MMA alors guy gi yàgg focus ci Reug Reug donc mm. Reug Reug doon wàññi poids léegi Reug Reug day def mais pourtant dalu lu tar ko wax lu xel ah. loo wax nga ne. ¿eh? ma ne Zarko li mu wax xel nangu na ko yenu na maanaa. non non ban non non xel nangu ko moom Zarko yi ngeen toll nii amee ko do moom mii ni mu toll nii amee ko doole. affaire du ay ay maas yi quoi. yaa ngi dégg yow doo ma bàyyi ñu wax ci waxu. yaa may dégg Isca moom lañ la laaj. waaw da nga may dégg da nga may dégg da nga may dégg lu ma wax la da nga may dégg lu ma wax la dama ne la. te yow ni nga toll nii nii nii amee ko doole amal loo jàpp sumo yi ak affaire nekk fi ak ngelaw lu baax yeeg yooyu yaa ngi dégg. mais barke alxuraan ka rër moo ëpp doole guy gi ñaari yoon parce que bo parce que bokkuñu yaram yaram yaram du doole kii xale bu ndaw la yaa ngi dégg si gaa. dégg. maa dégg bu baax a baax si Dallou. dama ne la dama lay wax benn affaire la booy bi gis nga gis nga lim doon yëkkati daa am doole. doole ak yaram bokkuñu. Mhm. Modou Lo moo gën a tuuti si làmba ji. ponk leen affaire doy volume. guy gi man la mënul ëpp doole Reug Reug ci àddina. Mm-hmm. parce que bokkuñu sax. Mm-hmm. guy gi maa ngi moo maase. Mm-hmm. te booy bi xale bu ndaw la. guy gi kay mënul maase yow yaa mag yaa mag. guy gi maa ngi moo maase nga naan guy gi maa moo guy gi maa ko mag a de. guy gi du 81 tamit nag dallu du guy gi du 80 du. 80 waaye ban 80 gars yi ñoom ñëpp a ñoom ñëpp a wàññi. Reug Reug daa wàññi. non non kooku Reug Reug man maa Reug Reug lu ma moom. bu ko bu ko bu ko dindi xale bu tuuti la. judduwul Sega li nga li nga gis nii ah Zarko ku li fay dëre waroon a bëreel a jël sa barki yàlla ku li fay moo la man. man muy contrat bàyyi ma ñoon Zarko. ma ne barki alxuraan ku li fay man. loolu ñi bañ naa kaa waat ci alxuraan te boo bëree yow. yow ak moom ma tegal la non yow wér nga yow wér nga. yow barke Seydina Mohamed billahi wallahi tallahi ku dafay dóor moo la man te xoolal boo lekkoon avance am da lay dama ne yow ci casino bi di nga nekk xale di la ay deux pièces rek sa xol tedd yow noppil. bon c'est que yow yow yow yow moom du ma yow du ma du ma nekk fi di la weer parce que damaa am sutura. yaa ngi dégg mais damaa nekkoon émission bi du ay affaire du affaire ay ay lii dama lay benn affaire ne la. billahi mu daan la. waaw saa ans nga def ba quatre ans. bàyyi ba njoon nu may jëlee kilifa yi. waaw mu ngi ci. waaye ban bàyyi non Baba Ndione yow Baba Ndione dala Baba Ndione yow yow Baba man yow Baba Ndione dala Baba Ndione dala may chance bu baax sax. waaw mais yow déglu ma déglu ma. parce que mosoo leen a bokk adversaire yi ñaar. lamba lamba di ne mu may la chance nii rek non non. yow déglu ma rek moo jóge fële ñëw tëgg lamba ñu ko waaw mais déglu ma yow yow yow bàyyi ma ñoon suma ma mayee sens normal parce que moo ma jiitu ci làmb man fi mu nekk nii fi nekk nii bàyyi ma ñoon man dama koy sant di ko gërëm xam nga lan moo tax parce que yéegal na ma ci benn échelon ci benn niveau ci làmb da ngay wàcci waat parce que da lay daan nga wàcci waat non da lay dóor ba nga génn la wàcci waat daan yàlla rek daan yàlla rek moo ko xam yaa ngi dégg mais ah, affaire yàlla nga indi léegi fan yi daa woo de fan yi daa woo de te yow yow yow temps ni ma la ni ma la doon toppoo il sama jàkkaarloo a yow il faut mu mit. yow yow yow buñ jàkkaarloo tamit yaay daw. daw fan yow boo daw man maay man man daw man ah da nga maa fàtte. buñ ah, jàkkaarloo yaay daw yow yow yow yow yow yow yow. yow li li nga mën rek xam nga mooy lan nekk foofu di di benn la xale jigéen yow amoo benn njëriñ fi mu ne nii. <laughs> loolu loolu. jaaw loolu du ma eh non fi may ooni fi may ooni fi may eh fi may ooni di ma fa ñëw fi may ooni di ma fa dem de. Eh, li ma bëgg li ma bëgg euh, daal li ma bëgg mooy. Eh. waaw li ma bëgg daal ah. sama débat bi tamit li ma bëgg mooy. Zarko ah. daal dama ko laaj tamit. ci ah. Bombardier report combat Balla Gaye nag wax dëgg yàlla combat boobu moom eh, euh, comment dirais-je avantage bi ci ci kii la nekk ci ci ci Balla Gaye ci Balla Gaye la nekk. liñ ko reporté ci ci ci Bal Balla Gaye la gën a la gën a arrangé quoi. parce que bës naa la xamal ne Bombardier dafa am chance boo xamante ni benn mbër amu ko ci àdd. Bombardier quand quand un liteur cherche pour avoir force moom day ut loo xamante ni day da koy wàññi. nga xaw ma dégg nga moo wala dégguloo ma. dégg naa la naturel bi la yor moom. moom naturel bi la yor quoi moom fu mbëri fu mbëri di génne di voyage di ut volume pour ñëw def volume bi doole ah moom day ut chaque jour sempre moom day ut loo xam ne da koy wàññi kon donc kooku moo ëpp avantage te deuxième deuxièmement bi aussi tamit mooy lan mooy c'est c'est un attaqueur moom du day attaqué quoi du arrière du ragal quoi. Hmm. Hmm. en plus tamit bëri woon nañu ñoom ñaar ba pare daan na ko kon donc Balla Gaye mënul mënul mënu fa ëpp avantage ci Boy Mathieu dem na génn na entraîné na et tout bien bel et bi baaxaat na et tout mais Balla Bombardier moo choc lamb ji quoi. ëpp chance. keneen kan moo Bombardier moo ko moo eh, kii nu mu tuddati eh, aj bi ñu ko aj nii avantage bi ci Balla Gaye la nekk. avantage bi ci Balla Gaye lay nekk lu tax parce que Balla Gaye day gën a pare. ba day gën a préparé wu rek ci. Euh, euh, Papa Sow Siteu aj bi kan la arrangé ñoom ñaar. Papa Sow Siteu non bii moom eh, waxtu dëgg yàlla. Siteu la arrangé quoi parce que da koy permettre mu gën a préparer waat parce que gis na Papa Sow jaxaarloo nañu eh, waxante nañu ay kàddu xaw ma nag laa peese na ko wala peese wu ko xaw ma laalante nañu wala laalante wuñu mais avantage bi yëpp ci ci ci parce que gis na adversaire am te dina gën a xam lu muy gën a préparer quoi. am mais Zarko kontaan naa ci yow. maa amal jàmm rek saa ne. mais sam waa ji. waaw léegi dallu kontaan naa ci yow. daan doon ne dama fi doon di nelaw de barki yàlla mais baal maa xadeñ sama gars yi nga il muy tàng. mais def ma ko muy dara. ameloo kenn ak mais man góor mënuma <laughs> ma jaay l'affaire bu bandi quoi am naa da ngaa ban ma la deful nii danga may danga may danga yii sama kaw <laughs> mais baal maa baal maa